am ndam hmm. yan jikko nga war a jikkoo hmm. moom lay continuer laa yetuma innu du dal hmm. ilaa ma jëm ci xam ne fii nekk na ci man xasatun ak wàññeeku illaa li amrin ma lu ngir am mbir alaa wajarin ci kaw ragal wala ci kaw njàqare nit su fekkee bëgg naa amaase lépp loo xam ne ni ak wàññeeku la du ko neex bi ci am dal mooy du ko neex du ko bëgg bu ci nekkee daal dafa am situation bu ko waral te naqar da ci nekkee xam nga nit danañ ko forcé mu xas yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Mhm. xas yonent ko yoo wàññeeku la mhm. waaye su ko nit defee rek mbir a tax maanaam force forcé ga mhm. ku baax laay wax waaye bu dutoon forcé googu du def loolu kon léeg-léegi nit ku nara dem wala boo ko war a amancé nekk ci loo xam ni ga wàññeeku la lu manqué la lu suufi la waaye situation bu mu ñàkk moo ko waral def ko rek mooy ndam foofu mhm. du lum bëgg mhm. du bëgg xolam mu ngi sib loolu mhm. waaye jamono xëy na moo ko moo ko teg loolu su ci mën a génn rek da ci génn dem ci lu mat loolu la waaye loo xam ne nii lu wàññeeku la nga mën cee génn ba pare nekk ca yow naroo dem wala si xuddu xerewlu xerewlu mooy déglu ilaa daa in jëm ci aji woote ala tamain si séeneen wala yu ne xudd wàcc bi qaain ci pak naazixil alali alal la alal gaa ak naan ak ñaareel wala bi aji néew naan ak ñaareel nit boo bëggee avancé bul déglu ku lay si séeneen seeneen mooy lan mhm. mooy loo gis rek yaakaar ne yow ci yow rek la jekk mhm. doy loo li la yàlla jox mhm. waaye lam la joxul rek moom ngay xool su ko defee loolu ak seeneen la lu am rek du ko doy day séentu yeneen yoo xam ni lu yàlla xam doy na mm. wala mën na ko yóbbee ci mu jikkoo jikko bu mu warul jikkoo mm. danga gis nit ko am alal ju bari di sàcc lu ko ko yóbbee mooy séeneen rek li mu am moo ko doyut mm. muy sàcc bañ koy tëj di ko dégg ci ay jafe-jafe yoo xam ne nii mënoon na ci ñàkk dugg ndax li mu am moom doy na ko dundam lépp mm-hmm. ak njabootam sax mm-hmm. waaye teewut bëgge bu ëpp séeneen gis ne moom lu ne la war a am mm-hmm. te kenn dajalu lépp Mm-hmm. looloo ko yóbbee ci muy sàcc wala muy def yu ñàkk fayda mm-hmm. ba am leeg boromam wala mu am leeg nit ñi mm-hmm. nit ko am alal ba pare di térian ba yàlla meral la dugal la safara te sa alal jooju nga mënoon ci liggéey yàlla ba dugg aljana seeneen rek a tax bu doon seeneen googu du dugg ci térian boobu dégg nga da nga gis ni koo xam ne kilifa la am na lépp lu mu war a am waaye mën naa wax ne ab jaam la dañ koy liggéeyloo rek lu ñàkk fayda lu ne mën nañ koo def loo mu def loo ko ndax dafa am lu muy séntu la muy séntu nag ñam nekk ci ñoom moom jaamu rek jaamu ñooñu rek la mën a doon hmm? danañ ko def loolu bon lu ne mu nekk ca loolu seeneen moo koy waral hmm. walaa yu neexu du wàcc hmm. ci pàkk boo xam ne nii dafa soy naar ñaareel mm-hmm. maanaam boo bëggee avancé tamit mm-hmm. la ngay wut fa mu nekkut loo ko fa wutee mm-hmm. pàkk boo xam ne boo fa wàccee boo naanee benn yoon doo naan doo naan ñaareel mar daan na ndox gaa waaye ma daa tuuti tuuti koo xam ne boo naanee benn yoon rek dootu ñaareel amul naan ak ñaareel ne kuy tukki da ngaa war a wàcc ci barab boo xam ne boo maree mën a naan ndax doo am problème sa jur gi du ñu am problème mm-hmm. waaye boo wàccee ci barab boo xam ne boo fanaanee benn yoon it doo ñaareel wala foo xam ne amul dara si ndox sax mm-hmm. da nga mm-hmm. jur gi nga yore it danañ sonn maanaam lépp looy wuti wuti ko foo xam ni mën nga ko fa am bari na fa loolu la bëgg wax waaye dem foo xam ni la ngay wuti dara nekkut fa wala la fa nekk tuuti la jëriñu la dara boo fa dem hmm? da nga wuti xam-xam hmm. dem ci koo xam ni lax darigu yegg sax mënu ko hmm. bunt bu njëkk wara la dégg hmm. bu la jàngalee bunt bu ca kañ nga xam-xam yow leneen looy wut ci it noonu wala day du sànq saati duhuri waxtig jamono yi fanan yahuda du dellu ma faata ci ay fanam al yu njëkk nee soo bëggee amancé hmm. bul sànq say waxtu hmm. ndax lu paase du ñëwaat maa hmm. mada mada wal mu ammalu xaybun wala ka saatuka allati anta fiha lu paase paase na li ñuy mbebet lu fàddu la ñëwagut sa waxtu wi nga nekk rek loolu nga kon nekkal su doomi waxtu waxtu bu nekk la ci war a def nga def ko mhm. xamoo suba nan la lay dikkee bul ne damay xaar ba suba mhm. démb wees na mhm. kon bul sànq say waxtu yëpp waxtu bi nga war a jàng jàngal waxtu bi nga war a liggéey liggéey ko li nga waxtu bi nga war a jaamu yàlla jaamu ci yàlla ndax bu weesoo xamoo ndax da nga am jotu man koo dabaatal wala déet mhm. nekk xale war a jàng jàngoo ba soxla yu bëri dikkal la mën mhm. ngaa bañ a téye jàng mhm. ndax boo ko bëggee amoo amoo jot ba yaa ngi am njaboot yaa ngi am soxla yu dul jeex mënatoo ko nga waroon a liggéey liggéeyoo dem ba njaboot gi wër la fere yu bëri wër la bu njëkk daawoo fere dara man ngaa liggéey liggéey boo xam ne ni eh, soo amee mën ngaa denc boo amee fukk mën ngaa denc juróom-ñett ya mhm. ñaare rek ngay fer nga dem ba nga xam ne boo amee fukk sax fukk yee doyatul la mhm. nga door a commencé góorgóorlu di liggéey mhm. doo am dara ndax waxtu yi ko waroon def defoo ko te démb moom passé na du ñëwaat dégg waaw lu jot defal lu jot defal bu takk soxna jotee takkal bu jàng jotee jàngal bu liggéey jotee liggéeyal mm-hmm. bu jaamu yàlla jotee jaamu yàlla mm-hmm. bul nangu dara wees mm-hmm. waaw lu xas raw du ñëwaat de wala yuraaqibu du fuglu illaa man lu may koo xam ne yuraaqibu dana ko fuglu boo bëggee dem na mel noo xam ne nii doo fuglu lu may kuree fuglu maanaam doo bàyyi xel lu may kuree bàyyi xel koo xam ne mu ngi lay nemmeeku di xool say mbir ndax yaa ngi si jàmmam nekkul ci nekkoo si jàmm kooku mooy kuréel fuglu ndax amoo jafe-jafem ndéet kooku mooy kuréel fuglu waaye koo xam ne boo nekkee si jàmm yoonam nekku si boo nekkee si safaan yoonam nekku si bul ko bàyyi xel bu nekkee si jàmm bu sa yoon nekk bu nekkee si safaan bu sa yoon nekk maanaam li mu ci nam mooy bul tardeel sa liggéey ndax moom te moom bàyyiwul la xel bula la sa mbir hmm ba nga tardé hmm ngir mom mo amassé bu avancé du jappalé hmm deng hmm kon bu mu la tardé sa mbir rek hmm wa am nga hmm ñu ëpp ci doomu aadama hmm dañuy bëgg ko xamni gudd guddi ak hmm suba ak ngone hmm mu ngi ci ñoom hmm. ñaari minute yu nekk woo leen mhm. wala bu leen xawee gëj a dégg lu mu tuuti tuuti mhm. mu vocal leen mhm. wala mu bind leen wala mu nemmeeku leen loolu mooy fooglu dañuy bëgg lu mel noonu dégg mu ne loolu nag bu ko def ak lu mooy ku ko def yow waaye koo xam ne foogluwul la toppatoowul la bàyyiwul la xel yow it bu ko fooglu bu bu ko bàyyi xel dégg nga loolu nag sax nit da ko mënul def ak ñëpp mhm. bu fekkee bëgg ngaa jokkoog yëpp mhm. da ngay yokkat moom la borom maqaama wala tuksiran al wasla fama mun la xattun si wal mhm. bul bëri looy jokkoo ndax ka yokkat ñaareel mooy ku bëri lu muy jokkoo nit gaa mënoo ñàkk am nit loo mën a mel rek foo nga am ay nit ñoo xam ne mënu leen ñàkk déggante mhm. ndax yéen a bokk li ngeen di def mhm. da ngeen seq mbir moo xam ne mënu leen ñàkk déggante mhm. waaye du toujours nga déggante ak ñëpp hmm? waaw ko defee di ko bàyyi xel am na solo waxtaanale sa waxtu ci woo nit ñi ak jokku leen ba nga war a jàng jàngoo ko li nga war a jàngale jàngale mm. li nga war a liir liiroo ko mm. li war a jaamu sa boroom jaamoo ko sa borom mm. li nga wér de war a wér de boo tardé ni ñu duñ la avancé loo dara waaw léegi léeg doomu aadama dana la bëgg ndax xam-xam te xam-xam bi kat ñàkk jot gi nga ñàkk jot moo la ko may wala mu bëgg la ndax joxe xam-xam te gi nga ñàkk jot moo la may nga mën a joxe xam-xam su ko defee ba la bëggee ba jokk la bu ngeen déggantu rek mu mere la ah maanaam moom mu la daf laa bëgg bàyyi loolu mu la bëggee woon yow ñàkk jot ñàkk dégganteeg moom hmm. ak ñàkk jot moo la may nga mën sax si njàngale moom hmm. léegi moom xamante naa yow mooy léegi bàyyi ci njàngale moom di wax ak man loolu mën naa nekk su defee boo waxut moom lu bari mooy da nga koo xeeb mu mere la fekk wallaay da nekk ci loo xam ne mën ko koo booleeg leneen rek hmm. kon foog lu baax na gaa mhm. waaye bu mu la yàqal mhm. te buy fuglu it na nekk koo xam ne mu ngi lay fuglu mhm. dégg nga mm, kon foo nga xàmmee nit ñi dina nangul ngant waaw koo xam ne ni fugluwul la gaa waaye waaye xolam a lay fuglu jotam moo la mooy mu fuglu la kooku nit ku baax la na ko nangul ngant ndax du xol ba moo la bañ a fuglu waaye jot gi moo ko mayut dégg nga mhm. koo xam ne xolam moo la fugluwul nag yow bàyyi ko foofu rek mhm. yaxya doomi zakariya la mhm. zakariya dafa ñaan yàlla yàlla na ko yàlla may doom joo xam ne ni wëlli lay nekk yàlla may ko yaxya yaxya tarul ja zakariya ne yàlla sama doom ji ma la ko ñaanoon pour mu wettali ma mu ngi nii tarul ma sax mu ne ko ah wëlli nga ma ñaanoon de wëlli yu wëlli yu mooy ku méngoo yàlla ku méngoo yàlla nag doo tal keneen moo tax boo nekkee ne yàlla ñaareel hmm. ah mën ngaa bañ a jot mën ngaa bañ bari bëri jot hmm. mënoo xaritoo yàlla ba pare xaritoo ku ne hmm. ku ne ku ne na nga wax ak moom ku ne na nga kii ak moom doo am jot boobu bu fekkee doom ja moo mën a bañ a wéttali baayam ba baayam yëg ne kii kat manqué na ko ndax lan ndax jéem a jox yàlla ay xàqam Hmm? wax laa koo xam ni du baay hmm? hmm? su ko defee kon noonu la wala yuraaqibu bu mu fooglu illaa man yuraaqibuhu lu may ko ko fooglu koo xam ne xolam toppatoowul la bu nekk ci tax sa mbir ci moom koo xam ne dafa ñàkk jot rek nangul ko ngant waaw wala yu saaxibu bu mu ànd ak illaa lu may bépp borom ak euh, nabiil mooy ku tedd ku foor booy ànd ak wala boog bépp borom xel rek booy ànd ak bul ànd ak illaa kulasi nubulin li mooy bépp borom ak xel ku am xel nekk nit ku tedd kooku ngay ànd ak ànd ak dof daan la yàqal de bu la jëriñee lam la jëriñ yëpp bis dana ñëw mu yàqal la ko ndaa amul xel gaa yi dañuy wax ne noon bu am xel مودن خريط بغات خل دا خريط بغات خل دا في سانك كم خريطو مونو مين رك كولاي بسل با نيو فام تاب موم خلام جوخت كو في تابل مو كوماسي كو بس نوم لاي ديف فاي غاني باسكو دا فا بس فو خامني ورو كو بس نون خريط بو امول خل نك اندور بو امول خل نون لاي مين دا فاي واخ لوم ورو واخ ngay gis rek mu bëgg laa tàgg bu wax wala mu bëgg laa dimbale ba def loo xam ne nii daf lay yàqal loolu àndoor bu amul xel moo koy wax waaw léeg-léeg nga dégg sans wax yu mel noonu ku bëgg a tàgg sax ab sëriñam boo wax loo xam ne xaste la yoonu sëriñ ba nekku ci moom moo ko créé rek du du sax dëgg far waaye bëgg wane ne kii foor na bu wax loo xam ne nii dafay yàq loolu dafay am léeg-léeg Hmm? Hmm. waaw boo yàggee dégg rek dana dégg lu mel noonu damay benn joxe misaal hmm. laal kenn dégg nga waaye boo yàggee dégg danga nga dégg lu mel noonu nit di wax ci kilifaam boo wax loo xam ni dafay xaslu kilifa ga waaye mbëggeel la ko waxee moom mbëggeel la ko waxee ak cofeel xarit la waaye amul xel amul xel ba ubbi na porte yu ñu mën a jamee kilifaam googu wala ku bëgg a defar ba far yàq ndax xamut ni ñuy defaree xamut ni ñuy defaree su ko defee looloo tax nit buy ànd ak dafay ànd ak borom xel yi ñoom bu ñuy wax sa gannaaw danañ xam ni ñuy waxee bu ñuy wax sa kanam danañ xam ni ñuy waxee ba duñ la yàqal ba duñ la xaslu tamit dégg yaa ngi xam moom bëgg baax mm-hmm. mm-hmm. wala yaxuddu bu mu compté ayuba naasi ayibu nit ñi mm-hmm. muxtaqiran daal yi xeeb lahum ñeel leen way jaxalu muy réere maa fii la nekk ca moom moom minal xilali ci ay ayib xilal mooy rag-rag ayib ama alal nag mooy sungani naa ak ñaareel bul compté ayibu nit ñi ci kaw xeeb leen bu pare fàtt ne yow am nga ayib amul doomu aadama bu amul ayib ku yàlla bind rek am na am manqué manqué bu nekk ci moom moo tax gaa yi di wax ne man allazi ma saaqat wa man lahul husna faqat xanaa muhammadun adi allazi alayhi jibrilu habat ana ki nga xam ne ni mosul def lu ñaaw ana ki nga xam ne lépp ma rafet amut maanaam dañ bëgg wax amut laajte boobu laajte bu dàq la amut. da mhm. mooy Muhammad sallallahu alayhi wa nga xam ne ci la Jibril wàcc. moom amul ayib. Mhm. ak ku doon maqaamam. Mhm. ñooñu de ñoo amul ayib waaye ku dul ñoom am na ayib. yoon ci Cheikh Tidiane dafa wax ne. dul ñetti maqaama yi manqué mën na cee feeñ mën na cee bañ a feeñ waaye mën naa manqué. ñetti maqaama yi moom duñ manqué mukk risaalatu ku yàlla def rasul manqué wut nee na boo gisee ci moom manqué yow yaa manqué waaye ba mu nekkee rasul rek la mat ak manqué munu cee feeñ nu bu wëtu mënul manqué koo xam ne nabi la ku yàlla wax yu boo gisee ci moom manqué yow yaa manqué waaye mënul manqué ak alqurbaaniyatul uzma ku yàlla yéegee ci maqaama xutbaaniyatul uzma muy xutbu zamaan mhm. dégg nga mhm. mënul manqué boo gisee ci moom manqué rek yaa manqué waaye kooku mënul manqué mhm. nee na lu dul ñetti maqaama yi borom mën naa manqué manqué ga feeñ wala sax mu ñàkk feeñ boobu mun na wax si ndax taalibe war naa di wuññitu manqué manqué sëriñam mu ne loolu waru ko def ndax sëriñ bi manqué manqué googu feeñ ci moom teew ko nekk soppeeku yàlla de teew ko nekk xaritu yàlla xaritu yàlla du mooy koo xam ne dafay mat ba du am benn manqué bu nekk ci moom léeg-léeg ngis koo ne wëlu yàlla mhm. soppeeku la waaye am na loo xam ne moom la boo xam ne yàlla nga ko feeñal ci moom sax te yàqul ko diggante mu borom mhm. yow jëriñoo li nga a jëriñoo ci moom mhm. loolee nga bàyyi ko du nag dafay mbëkke waaye béjjën woowu di lore ndax taxal nit ñi sànni ko déedéet yow rattal ci meew ma rek ndax meew ma nga soxla waaye nag béjjën bi moom moytu ko rek mhm. hmm? manqué nag kenn du ci topp kenn waaye du tax nga sànni kenn mhm. bu dee ku manqué nga sànni mhm. da nga sànni ñëpp doo am ku mat bu mukk laa dina bu yàggee sax yàlla moo du la wanati ku mat waaw ku mat sax yow doo gis ne mat na parce que yow manqué rek ngay xool moo tax doo mën a gisati kenn ku mat ci kaw suuf pour pourtant ñu mat ñaa fi de mhm. waaye yàlla laa fay sa yéene parce yow mhm. bëggoo kenn mat yàlla yàlla muur sa bët ba mënoo gis kenn mat mhm. hmm? su ko defee kon bul compter ayibu nit ñi ngir xeeb leen diw def na nàngam loo si jublu pour ne yow xeeb nga ko encore na ko nit ñi xeeb loolu rek rek rek moo si jubluwaay di wax ayib di wax ayib di wax ayib di wax ayib pour wàccee ko xeeb ko yow bëgg nañu xeeb ko hmm. nee na loolu bu ko def ndax yow yaa ngi am ayib hmm. waa ji nee na soo tuddee ayib bi jàmbur hmm. nit ñi xam nañ ci yow ay ayib ba pare noppi ba pare noppi bal sax sooy tuddee ayib bi jàmbur boo amutoon benn ayib yàlla feeñal sa ayib yow ngir ne jàpp jaamu yàlla yi di feeñal seen ayib yàlla leen feeñal say ayib amul ko amul ayib Abu Yazid al Bastaami yàlla daf ko wax ne ko nit ñaa ngi la topp di la màggal hmm. su ma génnoon say ayib ay xeerañ lay jëm ba nga dee waaye kenn dootu la màggalati tekkul ne dafay def lu bon ci suuf de hmm. mais lu baax lam nekkee sutura la su ko yàlla génneloon dindoon sutura boobu hmm. lu bon lay def kon am na ayib yàlla daf koo nëbb amut ko amut ayib xataa ku baax gisoo mu mooy yàlla gisoo mu def dara yàlla dafa nëbb ay ayibam mais bu dindi woon mbaaxam googu yàlla mbaax gi yàllaa ko moom mhm. su ko dindi woon ci waaji rek waaji lu bon rek lay def loolu doy mhm. ayib guñ nëbb la mhm. ñaar rek fi nekk ayib guñ suturaal ak ayib bu feeñ yow nag bu la yàlla suturaalee da koy xam xam ne ba léegi yaa ngi am ay ayib ndax lu bon lu ne rek mu ngi ci yow mënoon nga ko def lu bon loo mën a xalaat bul doon suturaab yàlla rek yaa ngi ca mhm. kon sa ayib dañ koo nëbb mhm. mais tekkiwu ne amu ayib mhm. rawatina nag bu fekkee yaa ngi am ayib yi feeñ sa far hmm? moom la yàlla di wax wax ne ko bul tudd bu nit fekk yaa ngi gis sa bopp ayib te jaam bi du mucc ci ayib ba mukk jaam bi du mucc ci ayib tekkiwul ne jaam force mu nekk di def lu bon di def yu suufi déedéet léeg-léeg jaam yàlla wëtt ko sàmm ko ba nga xam ni moom ñaareel sax mën naa bañ a def lu manqué te yëgul sax ci maqaama xutbaan yi loolu day am. Mhm. waxuñ ne foo nga yegg ci maqaama boobu pour mat. Mhm. ku dul kooku manqué mën naa feeñ ci moom lañuy ñu wax waaye mën na cee ñàkk feeñ. ñun naa nekk nit ku simple ni doo gis ci moom manqué ba mukk waaye am na ayib. Mhm. am na ayib mooy mbaax googu yàlla def ci moom bu ko dindi woon. lu bon rek lay def. yàlla suturaal la nag. ah ngay bàkku ci kaw jaamu yàlla yi nga xam ne ni. xamul lenn loo leen gënee lu mooy sutura ak yàlla yàlla dindi suturaam ngay def lu bon dégg nga su ko defee loolu la bëgg wax foofu wala yu amilu bu mu mbébét amaaleen ay mbébét li subhi xaddin ñeel subaak ëllëg illa ala wajrin lu mooy ci kaw njàqare min wasbatil ajali ci tëbëg diir ba bul mbébét ay mbébét mhm. ngir suba mhm. no mooy yaa ngi yaakaar ne balaa suba jot nga dee mhm. balaa suba jot nga dee tëbëg diir bi mooy sa diir bi nga war a jeex nit koo gis nag mu ngi ànd ak mbébét suba bëgg naa def nangam bëgg naa def nangam benn muy mbébét lu baax wala muy mbébét lu bon rek yàlla na ci yàlla musal te ku dee bàyyi fi mbébét maanaam bàyyi fi lu mu mu sotti te sottiwut ak ku mën comme que li ngeen mbébét nag am na yoo xam ne foo du yegg saa yoo mbébétee dara da nga jàpp ne balaa looloo ñëw ma jógee fi sax man su ko defee loolu nga mbébét du tax nga fàtte yàlla du tax nga fuuy du tax nga bew waaye boo yaakaar ne suba war ngaa mel nangam suba war ngaa yegg barab sàngam suba war ngaa am sàngam yaakaar ne da nga fa yegg te doo dee mën na laa yóbbee tuuti ab mbewte ak fàtte yàlla ñi fàtt yàlla ñu ci bëri la leen fàttaloo yàlla mooy mbébét bu gudd ndax loo mbébét sa liggéey yëpp mooy nu may def ba dëggal loolu te soo mbébétee mbiru àdduna loolu ci ngay liggéey moom ngay wax moom ngay jëf ñu mel noonu ngay jokkoog bu yàggee mu fàtt loolu sa borom hmm? Hmm. yàggee daf koy fàttaloo yàlla mu sàggan ci topp yàlla ak ci jaamu ko mhm. te mën naa am loolu sax moom balaa mu mu ciy jot mhm. far dee mhm. loolu yàqal na ko jaamu yàlla te jot am yàqal na ñàkk na àdduna ñàkk àllaaxira wala boog dana ko am gaawaay bu koy am dee danga gis koo xam ni dafay romb ab kër mu rafet gis ab oto mu rafet mu gis ni alal di taaralee boromam mu jàpp ne loolu mooy taarab dëgg mhm. mu wéwét am kër googu oto boobu ak alal jooju mhm. su ko defee du tala jàngati du tala jaamuti yàlla mhm. <laughs> talu julli sax ci waxtu ba guddeeg bëccëg subaa ngoon mu ngi ci wutam xaalis pour yegg ci maqaam boobu bu nekkee ci marché ba sax julli yi daf koy leb ba guddi jot mu boole ko fay ko bu fay da koy këpp këppal ndax mu ngi sonn wutam alal mi moo ko gënal jaamu yàlla seytaane nag ndax ko tuuti ne ko ah moom ci alal ngay jaamu yàlla wuutal xaalis ak boo paree dimbale nit ñi dugg aljana mhm. fekk naxe la rek ab saraxe mhm. rawatina sarax goo xam ne du farata mënu tegg farata ci yow te mhm. julli juróom yi farata la ci yow moo gën a force ci lépp luy nit di def gannaaw ñaari baat seet yi kon dara mënu ko tegg ci yow ku la bëgg wax ne boo joxee alal dana tax julli wàcc la wala julli yu nga doon julli doo ci am bàkkaar daf laa bëgg a nax rek ndax yomal yàlla julli lay njëkk a xool su baaxee lépp baax na su bonee nak lepp yakuna ah, lo xamné mom la yalla njëkk xol la nga diko ko mhm. ngir aduna bo xamné ne rek dana la yo sa intérêt bopp la mu dira nax na la bo amé aduna boobu joxé mhm. ku la wara nga am àdduna ken kenn nga xey di kër ci kër ci liggéey liggéey liggéey liggéey tarato jaamu yalla xey rek liggéey bi sax mën na laa rey ndax jënd bagage nga doon jënd ci nga accident dé mhm. wala boog ndogal yalla ñew rek day jott te yeggu ko fi nga bëggoon a yegg mm-hmm. mu xañ la àdduna mm-hmm. mbébét boobu xañ la àdduna mm-hmm. xañ la àllaaxira moo tax mbébét bu gudd baaxut del gàttal sa mbébét saa su nekk nga yaakaar ne yow suba nga war a dee su ko defee loo am mu doy la booy jëflante ni ñu dana rafet booy waaye fuuy mbébét bu gudd koy waral yaakaar ne yaa ngi fa ba ci kanam yaakaar ne man nga am lu ne loolu mooy waral fuuy mooy waral fàtte yàlla mm-hmm. nit dana mbébét may may ga ñëw mu dee mm-hmm. nit dana mbébét oto oto ba ñëw mu dugg ci accident dee mm-hmm. dana mbébét kër am kër ga jaaree fa dee hmm? mbébét alal alal ji ñëw mu amee fa ay noonu yu ko rey bandi yi ñëw rek jam ko mu dee kon booy mbébét mbébétal yàlla imagine rek boo jàppoon nit bu jàppoon ne moom suba lay dee hmm. buy wax ak nit ñi ci jamono boobu nan lay def wax ju rafet lay wax hmm. buy jëflante nit ñi ci jamono boobu te wóor na ko suba lay dee nan lay jëflante ñoom jëflante bu rafet lay def hmm. buñ ko ngeroon àddina lu ci biiram it lu tax mu def lu bon parce que xam na ne moom lii da ko fi bàyyi léegi suba suba mu war a dee ndax dana jël nger googu te da ko fi bàyyi léegi de mm-hmm. def lu naqari yàlla mm-hmm. xalaatul ko ndax dana wax wax joo xam ni ay tappal rek la neexul yàlla mm-hmm. xalaatul ko buñ ko tooñoon sax mu wër ko na suba lay dee day rek parce que du fi nekk di fayeeku wante ci àdduna boo xam ne jeex na ba pare moom suba suba la war a dee du fi nekk di fayeeku wante kan moo ñu wax ne ñun suba danañ ko fekkee ñaata nit nga gis ñu waxtaan def lépp julli ba pare dugg seen néeg rek de ñaata nit bëri na mhm. kon yow suba sax wóor la da nga fa da nga fay gëm déet mhm. defee bul mbébét mbébét bu gudd mhm. sa tey daal jaamul sa borom bi waaye na la wóor ne mën naa am balaa bis bee jeex nga jógee fi booy julli nga julli jullib kuy tàggatoo sooy wax nga waxu kuy tàggatoo sooy jëflanteeg nit ñi nga jëflante ñoom jëflante kuy tàggatoo lépp looy def na ko def defak kuy tàggatoo julli kuy tàggatoo ndaw lu rafet ndax wóor na ko ne ci bàmmeel la war a dugg bu paree ci julli gi mhm. dana ko rafetal de mhm. wax kooku dëgg lay wax mhm. su jeexee jeex na ci lu baax lay def su paree pare na ci moo tax mu ne bul mbébét dara suba lu may yaa ngi ragal ne balaa mbébét baa ñëw sax sa waxtu jeex maanaam yaa ngi ragal ne yow léegi nga jóge fi du la tee liggéey du la tee liggéey de nga yaakaar ne yow ngoon ngay dee du la tee liggéey parce que liggéey bi daf lay may tiyaaba nga am da ngay liggéey ngir jaamu sa borom gis nga liggéey ñu bëri dañ ko jàpp ne bànneexu àdduna la fekk wut wut xaalis boobu muy wut jaamu yàlla la wutu ko ngir àdduna yàllaa ko sant liggéeyal mu dem liggéey rek jullil mu julli wooral mu woor joxel dépasse mu joxe dépasse jaamul sa borom mu jaamu boromam après lu ko yàlla santul moom waxu ci dara yonentu mas naa toog fajar mm-hmm. saxaaba yi toog ak moom du jàngeen xadis boobu yonentu sallallahu alayhi wasallam di wax ne euh, yàlla dafa yebal malaaka yoo xam ni dañuy wër ci kaw suuf mbooloo muy gis ñu tudd yàlla rek mm-hmm. ñu ñëw wër leen ba ci asamaan mm-hmm. su ko defee yàlla jéggal mbooloo moom yëpp xadis bi ñëpp xam nañ ko hmm? malaaka yi ne yàlla diw mee bokkut ca intérêt rek moo ko yóbbu ci mbooloo waaye moom demutoon ngir tudd yàlla mhm. yàlla na ñoom ku toog ñoom doo texaati mhm. jégal nañ ko moom it mhm. bu fekkee toog nit ku dul yonantu mën naa tax doo texaati toog ak yonantu nag hmm? yonantu saa nekk mu ngi si tudd yàlla yonantu du fàtte yàlla fa mukk moom xaalam ak lépp mu ngi si kon ku toog moom yaa ngi toog ak kuy tudd yàlla jamono bu mu fàtte yàlla mos nga woo gi loolu mënul am waaw yàlla ne na ngeen tudd yàlla lu bëri yonentu moom di toog jamono boo xam ne mu ngi sàgganee tudd yàlla mm-hmm. loolu amut mm-hmm. kon moom saa su nekk mu ngi ci tudd yàlla ci xaalam ci jikkoom ci jëfam mm-hmm. boo toogee moom nooy texaadee loolu daf lay wan garaatu ab saxaaba mën naa manqué mais nekk ak yonent bi mën na ko ramm comme ni nga xamee ne nit mën naa manqué waaye toog ak ñu baax rek ramm ko moom mu baaxut daraam baaxut intérêt sax moo ko fa yóbbu mais toog ak ñu baax ko bu fekkee yaa ngi xelu loolu daf lay wan garaatu ànd ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku baax daf lay yéegi foo xam ne ni jëf moom la faa yéegi mhm. saxaaba yi toog toog ak yonentu boobu mhm. xam nga loolu nu mu foore te yonentu ku toog moom mu jàngal mhm. ndax moom du toog noppi daf leen di jàngal te sàkku xam-xam gis nga li ci liñ ci wax ci ay tiyaaba moo gën ci lépp li ñu di def nit dem na bay génn àdduna ñoo ci yonent bi laaj ko ban jëf laay def Mm-hmm. yonent xamal na ko ne dafay waaj a génn àdduna mm-hmm. ban laa war a def pour dee fekk ma ci mu ne ko demal na ko ne léegi mu dee mm-hmm. balaa timis mu dee muy di jàng jàng moom pour lan la xam nga ne kooku jàngul pour confiance de kooku jàngul ñu ko yaay sëriñ bi de kooku jàngul pour maqaama ëllëg de kooku dafa jàng parce que jàng jaamu yàlla la moo tax jàng jaamu yàlla la koo def ngir ëllëg nga am ci leneen dada jàngal parce que yàlla la jàngaloo jàng mi ci moom teeyaba la am nga ci leneen amoo ci leneen sa yoon nekkul ci yow. Hmm. loolu mbiru yàlla. Hmm. ba dee ñëwee fekk ko ci njàng moom. Hmm. xam nga loolu kon. gën gim gën moom sàkku xam-xam moo tax yonent digal ko loolu. dégg nga. léegi ku boole sàkku xam-xam ak toogu yonent bi benn waaye moom fajar teel mu jug. nekk xale boo xam ne yaram waa nga tooy xepp. di liggéey di wuti xaalis. saxaaba yi xool ko ne woy xaaxaazaay. kii rek yërëm nañ ko mhm. su fekkoon ne kàttanam gi ak dooleem ji daf ko def ci yoonu yàlla maanaam dem jihaati xeexi mhm. moo gën ci moom de muy xëy di wuti àdduna nii waaye dafa xëy fajateen moom di liggéey moom gaa yi nga toog yonent bi toog yonent bi loo xam ci tiyaaba gu ci nekk tiyaaba gu nu kuréy mhm. ñu ngi jël kam kam ci yonent bi bu dara sax xool kanamu yonent bi jaamu yàlla ndax kanamu borom xam-xam la xool ko jaamu yàlla ñooñu ci jaamu yàlla gu rëy lañ nekk waa ji moom di liggéey doole dooleem ji mu am ak kàttanam gii lii hmm. bu ko defoon ci jihaat moo gën yonent ne bu leen wax loolu kon mu ngi leen di jàngal hmm. su fekkoon ne dafa génn hmm. ngir ay waajuram yu mu bëgg a dimbale mu ngi ci jihaat mu ngi ci yoonu yàlla googu ngeen wax su fekkee dafa génn ngir boppam lu mu mën a fegoo jaamoo ko boromam ba léegi mu ngi ci jihaat su fekkee dafa génn ngir ay doomam yu ndaw yu mu bëgg a toppatoo mu ngi ci jaat su fekkee ne dafa génn ngir ngistal puugarewu gis na nit ñi ku am ñu faale la mu bëgg am na maa ngi nii si gars yi laa bokk patron yi si laa bokk nee na kooku mu ngi ci mhm. kon liggéey nu ko yonent tuddee jaamu yàlla mhm. jaamu yàlla la jihaad la mhm. yow mi koy def danga ci am tiyaaba hmm? moo tax nit bu ko wëree suba lay dee da gis muy kërti kërti ci àdduna di liggéey ba nga yaakaar ne kii moom dafa yaakaar ne dootu fi jógeeti mm-hmm. te wóor na ko moom suba lay def mm-hmm. parce que loolu muy def defut ko ngir bakkanam def koo def ngir yàlla mm-hmm. foofu nag fu jëfee yeggale yàlla ñu fi yàlla yeggale lépp looy def doo ko def ngir sa bakkan nga def ko ngir yàlla ah kon yaakaar ne suba ngay def du wóoru tax nga liggéey yow ngaa jógee ci àdduna bi rek ñu nekk sa gannaaw yëpp moom nañ nañ perte waaye liggéeyal ngir boo fi jógee ñoom ñoom it ñu dund ci jàmm ak salaam bu loo sa loolu rek jar ko ànd ak liggéey bi jaamu yàlla mhm. kon nit bu yaakaar ne suba la fi jógee it na mhm. liggéey jaamu boromam mhm. na def li mu war a def nay wax dëgg hmm? di déglu lu baax di tere lu bon di dimbale lislaam di dindi lépp lu ko yàq moom wóor na ko ne suba la fi jógee di soppante ci yàlla di dog ci yàlla sax mm-hmm. di bëgg ci yàlla di bañ ci yàlla mm-hmm. te woon na ko moom suba lay dee mm-hmm. woon na ko suba lay boobu na ko yore saa su nekk looy def rek na na la wóor na suba nga fi jógee kon da ko def te yàlla tax mais amatul benn intérêt booy xëcc waaye boo guddee mbébét rek da ngay fàtte lu bëri da ngay def ngir leneen wala yazunn bu mu njort bi mu si ñoom su an lu ñaaw wala xasanam du caagan lu rafet mhm. bal li fi nekk a tijaari bu nattu yi mhm. tax di dana ko jubal ala mahalin ci teey mhm. nee na boo jëflanteeg nit ñi bul njortu ci ñoom lu ñaaw bul njortu ci ñoom lu rafet jamono moo lay jubal ba nga xam ñoom ñu baax lañ wala ñu bon waaye na nga tee nag nit boo ko gisee bul ne ku won la naam ku baax la waaye yaa ngi koy door a xam. Hmm. di jëflante moom bul ne ku baax la mën naa am sax ku bon la. Hmm. bàyyil rek dund gi nga dund ak moom dana la wan kii kan la. Hmm. boo demee ba jamono wane ko nag nga door a xam kii ku baax la wala ku bon la. waaw xew-xew yi xewal yi. natt yi li ngeen di dund jëf yi. wax yi ñooy dem boo wane waa ji. mooy kan. yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam naafeq yi si jamonoom xamuñ leen lu mooy ci jamono xare yi jafe-jafe yi moo dem ba génne leen mais xëyuñ xëy rek ne diw naafeq la diw naafeq la wala ñuy joxañ ñenn ñi di leen di leen di leen junj ak naafeq am na ñu leen junj naafeq mais jamono leen wane koo jëflanteeg bu yàggee nga xam ko kon bul gaaw a tagg te xamagoo nit Mm-hmm. ndax man na laa yóbbee tagg tey xas suba mm-hmm. bul gaaw a xas mm-hmm. te xam ngoo ko mën na laa yóbbee xas ba pare ruus léegi ki nga doon xas du ku ñu war a xas jëflante nit ki ba mu yàgg da nga xam kii ban façon nit ci waxam ak ci jëfam dégg nit ku baax nag moom ñaareel daanaka lam nekk tey suba ci loolu nga koy fekk gannaaw suba ci loolu nga koy fekk xanaa mu mm-hmm. yokk jëf ju baax waaye du ko wàññi mu nee mm-hmm. nag na ànd ak teey mën ngaa gis nit benn mbir buy war ne ku bon ku bon la fekk bonul walaay mm-hmm. xëy na jumte la wala ba léegi yaa ko déggagut waaw ba léegi yaa ko déggagut nga nit seen xalaat yi bokkuñ moo tax léegi nit dana jàpp ne lii lu bon la fekk looloo li gën ci yàlla léeg-léeg mu jàpp ne lii baax la sax fekk loolu lu bon la kon teeyal jëf ji répété répété waat répété waat répété waat répété waat nga gis erreur boo xam ne lii moom amul lenn luñ ci mën a taawil mm-hmm. nga door a moytu waajooju xam ne kii kat nitu safaan la mm-hmm. waaye benn benn mbir rek nga askane ko nit ku bon wala boog benn jëf ju baax rek nga classé ko ki gën ci nit ñi mm-hmm. loolu teel loolu teel na ala mahalin na na nga teey na nga teey dégg wala moo tax àndoog nit ba ci kanam mhm. nga door a jaxasoog moom baax na yenn jaxasoo yi balaa am na fekk xamante am bu mhm. baax léeg da nga xam nit buñ la waxoon def na dara nga ne defu ko mhm. wala buñ moo ko def nga xam ne moo ko def parce que yàgg ngeen wala yenaamu bu mu nelaw maanaam bu mu sàggan waaye nu daxari te bëtt jamono saahiratun aji foog la fi shaani ci mbiram woowu te fekk moom saahin aji juum la xeyru mhm. muxtafil yi faalewut mhm. faalewut li xew mhm. nee bul nelaw te jamono nelawut maanaam bul sàggan ci li war a def te yow jamono sàgganut li mu war a def ci yow nga da nga di xale nga war a jàng jàngoo jamono togg rek nga war a liggéey liggéeyoo mhm. jamono ngi togg rek mhm. léegi nga dem ba magee mhm. jamono andi la situation boo xam ne nii xam-xam moo dafay génn te jàngoo nga def yow yaa sàgganoon ci li nga waroon def waaye jamono moom noonu war a teg buy jot mu teg la ko force léegi andil na la situation boo xam ni tey boo amoon xam-xam lii moom génn nga ci. Mhm. waaye ñàkk xam-xam rek moo dugal ci musiba gi te musiba gu lay topp ba laa yëmitiin la dangaa sàggan. Mhm. ci li nga war a def te jamono sàggunul ci lim la war a teg. nga waroon liggéey liggéeyoo jamono ñëw andil la soxna. Mhm. andil la njaboot nga war a am kër force war a dund force te yow ba liggéey jotee liggéeyoo woon. da ngaa sàgganoon ci li nga waroon def. Mhm. yaakaar ne fi mu nekk nii yaa ngi xale rek noflaay rek nga war a def. Mhm. dem ba màgg nag jamono teg la ay soxla yoo xam ni da nga ko war a faj te préparé woo ko. Mhm. jamono ay nattoom bu jotee rek mu teg moom yaakam tuur soxla yi bu jotee mu andil la ko. situation yi bu jotee mu feeñal ko sa kanam. la la ca waroon a génne nag yaa ko waroon a préparé liggéey ko. nit buñ lay fexeel. da fexe fexe boobu bu ñëwee nga mën koo dindi. Mhm. jamono saa su nekk mu ngi lay fexeel maanaam mu ngi lay indil ay situation. Mhm. Mhm. dégg nga. charia it ay santaaneem teg na ko. booy nekk mu kalaf rek war ngaa def lii war ngaa def lii war ngaa moytu lii war ngaa moytu lii. yow jàngoo ngir. santaan yooyu nga xam ni ñu koy defee mhm. la koy yàq ak koy defar sa yoon dara yow xamoo dara mhm. su ko defee jamono bu ëndee situation nga war a jëf te mënoo jëf bàkkaar rek mhm. kon nit ñaaran ko séq sariyaan ko séq di am lu mu ko sant di am lu mu ko tere na préparé loolu balaa muy wàcc ci kanamam moom lay borom ni sawara di wax na nañ jàngal xale yi balaa ñuy mat mu kalaf fekk balaa ñuy mat mu kalaf ñoom miin nañ lañ war a jëf mm-hmm. waaye it jamono sa karam di def tegal ay pexe rek ay mm-hmm. plan rek te pexe yooyu ci ba ngay nekk ndaw ci nga mënoon a fàggoo loo xam ne bu ñëwee du la lor mm-hmm. fàggoo ko ba fexee ñëw da taxaw rek kuy jaar ci yoon woom gaynde war ngaa préparé loo xam ne bu gaynde gi ñëwee nga mën a jëflante moom waaye bu boo demee préparé wu dara gaynde gi ñëw nga yor loxoy neen lay rey rek moo tax mu ne bul sàggante jamono sàgganul sagunul sa mbir yow hmm. nag yaangi joom rek nekk ci ay njumte rek faale woo la la jamo na la tek ci kanamam te mu ngi ñew hmm. yaa ngi xam nga mu bëgg wax dégg nga hmm. bu mu nelaw moy bu mu sagal rek jamono nelawut ñu fokk foog jamono sagunul ci moom man lam tufidu ko xamne jarignut ko surufu jamono tajribatan ci nat fii maa yu xaawilu ci li muy fexe mhm. fal yar ana sàmm mhm. ma al xamali ànd ak jurgu booy ga mhm. booy ga mooy xar yi ak bëy yi jur gi nga xam ne dañ leen bàyyi noonu rek ñuy dem ñu sàgganee leen kenn sàmmul leen xam nga ñoom fu ne lañuy ñuy dugg mën nañoo dugg sax ba dugg fu ñu warul dugg am fa problème nee bu fekkee li ngay dund xamalul la fan nga war a teg sa tànk yóbboo nga ànd ak bàyyi may xam ne kenn mënu laa yeeti kenn mënu laa waarati ba nga yeewu kenn mënu laa waxal ba nga yeewu ndax sa jamono mooy jàngalekat bi gën a mag ci yow lii nit ñi waxul yow rek li ngay dund waaye lii nit ñi di dund li jamono di def ndax yoon woo gis hmm. am na ku fa awoon am na fu mujj bu loolu jàngalul dara hmm. ah, yow kenn mëntu laa jàngal hmm. nga gis jëfkati ku lu bon hmm. mu mujjee foo xam ne lu yàlla xam doy na yow loolu yoon wii kat waroo faa jaar ah dara mëntu laa jàngal ndax li nga gis dund ko bu la yeewut liñ lay wax rek mënu laa yee lay jàngal yëpp wax kese la li nga gis sa jamono nag mooy jàngalekat bi gën a mag ndax loolu mu doon koo dund kon looy wut rek xoolal ña weesu mm-hmm. ña fa jaar ba jàll mm-hmm. dañ la jàngal fan nga war a teg sa tànk mm-hmm. fan nga war a teg sa tànk moo tax borom xel mbir mu muy dugg dafay xool ña ci jiitu ña jiitu ci li njëkk ma ci bañ duggee ci lii lan lañ fi lan lañ indi fan la leen yóbbee lan la leen jariñ mhm. bu xoolee ne ñoom ñëpp musiba rek la leen mhm. mu bàyyi loolu dem seet loo xam ni dana ci jëlee njariñ mhm. Hmm? bu gisee na lii nag lu baax la ñi ca duggoon ñi ca ëpp wala boog ñu bari yàlla dimbale na leen ca moom mu dugg ca te ñaan yàlla yàlla boole ko ci ñoom dimbale ñaar rek am ci àdduna nag xisbullah xisbu cheytaane ñaari parti parti yàlla parti cheytaane nguur ak yàlla gi amul parti yu bëri de am na part opposition opposition ga am na ñoo xam ne dañuy opposé wu yàlla mhm. waaye benn parti rek la mhm. mooy Iblis ak njabootam ak parti bu nekk ci pouvoir bi ñoo nekk ci nguur gi mooy parti yàlla bi mhm. ñoom ñoo nekk ci nguur gi te kenn mënu leen folli far mooy xisbullah yi kuréelu yàlla gi jullit ñi yonent bi mooy seen njiit yàllaay seen buur yàlla nag ne alaa inna xisbullah humul muflixuuna kuréel yàlla gi ñoom ñooy texe alaa mm-hmm. inna xisba seytaane parti seytaane mi nga xam ne moom jaam rek la mm-hmm. ku lott la waaye am na parti bu moom mul xaasiroon ñoo ñooy perte mm-hmm. dégg nag kuréelu yàlla gi kuy jullit ci parti boobu nga bokk xeebeer ci parti la bokk na ñaari parti yooyu rek fa nekk moo xam nga benn parti du xeex boxam parti du xeex boxam intérêt parti bi yow nga di ko xeex da nga fekk da nga bokk ci parti boobu rek. Mhm. Hmm? Mhm. moo julit julit bu nekk noonam. Mhm. ku dul julit rek mooy nekk noonam. ña bokk ci kuréelu yàlla ga nag. léegi léegi kuréelu seytaane gi xëcc leen bañ liggéeyal leen benn ñoo ko tey wala teyuñ ko mais jamono boobu moom kuréelu seytaane lañuy ñuy liggéeyal parti opposition bi la ñuy liggéeyal. jamono boobu. ben ñu tay ko wala ñak ko tay bokkuñ fa way mom lañu ñuy liggéeyal jamono boobu moom la yàlla wax ne inna alladina taqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru fa idha hum mubsirun bu fekke ci parti yàlla bi deug lañ bok te mom rek lañ fasiyene di liggéeyal léeg-léeg gaa cheytaani xëcc leen ñu liggéeyal ko fas waye buñu fatali ko buñu gis ni li kat ndeke da fay daanel parti bëri te parti bi kenn mënu ko daanel waye sababu la pour daanel ko li seytaan lay liggéeyal nga gis ñu fàttaliku yàlla delluwaat tuub delluwaat seen parti bu ñoom xool la parti boobu bëgg ñu def boo xoolee nag jamono adama ba léegi hmm. képp kuy liggéeyal yàlla moom rek nga gis muy am ndam hmm. kuy liggéeyal seytaane moom rek nga gis muy perte hmm. kon su fekkee loolu yeewul la ba nga bokk ci ñuy liggéeyal yàlla dem liggéeyal yàlla moytu ñuy liggéeyal seytaane bu dee loolu yeewul la dara mënatu laa yee bu dee aad ak samuudi yeewuñ la bu dee abu jahal nag abu lahab hmm. nekk gi nekk ak yonentu yeewul la hmm. bu dee saay saay yu bon yi fi nekkoon di yàq yeewuñ la hmm. dara mënatul laa loo gis rek am na lu ko gënoon a lu passé borom doole yi nga xam ne ñi ngi yàq yàlla gis yàlla feeñaloon na ci jamono koo xam ne nii wala ñoo xam ne àddina yëpp ñoo ko moomal seen bopp namruut bu la yeewut yow mi am alal dara mënatul laa buxtu nasar hmm. bu la yeewut dara moosu laayee hmm. ñu dëgër bop ñi fi nekkon hmm. mbëru lool dégg nga doon xeex ak yonent bi sallallahu alayhi wa Makka buñ la yewut tay woné demee Makka doo gis lu muy ab julit yow dara moosu laayee kon ku jamono jangalut ba nga xam fan nga war tek sa tank te moy ànd ak yàlla rek ak yonentoom loolu rek ay njëriñ yow dara mo laa jangal dara mënut loo jàngal leneen lu woote bi yàlla ak yonentam rek perte rek ci lay jëmale boromam. Mhm. su ko defee xasida bi fii la yem. Mhm. léegi mooy darsu bu ci mujj. إن أريد الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان ربك تدنا ستدنا مسلك سبرم رب العزة كبر مجمع ما يصفون لب لنك ملل تجارب وشمو وسلام جم على المسلمين يعني لك شنو والحمد يعني لله رب العالمين كيف من دفن